ni rek nekkinu étudiant yooyu ca ESP neexul la benn yoon ndax kat seen ay conditions de vie méngoowu la benn yoon ak condition yu ñu jàngee si loolee yeneen problème dal di ciy dolleeku ci la étudiants yi nga xam ne ñoo nekk foofee ca école supérieure polytechnique bu Dakar di ñaawlu. problème mu nombre d' étudiants bi nga xamante ne nii école bi mi ngi koy jël di ko am ba pare dëkkuwaay bi demeewu ko noonu boo xoolee bu njëkk ci chambre yi ay deux lañ daan nekk dañ koy lijjanti ba dañuy nekk ay 3 ak i 4 te loolu ñun suñuy condition de jàng demeewul noonu te problème mu ndox mi nekk fi ay at école bi boo fi ñëwee ci biir année scolaire bi gis ne étudiants dañuy sonn. mu mel ni rek ñàkk pavillon yu doy moo waral surcharge bi nga xam ni moo am ci seen chambre si la Serigne Makhtar Lo ak ay naataangoom di wax ne ànduñu benn yoon ci pavillon bi ñu war a daane la foofee ca ESP. Euh, démolition bi ñu gars yi prévoir maanaam daaneel pavillon bi nga xam ne moo nekk suñu campus muy pavillon F bi. donc gars yi dañ ko bëgg a daaneel donc ils ont même déjà commencé di génnee ay porte kon ci daaneel la ñu jëm donc ànduñu ci évidemment parce que suñuy étudiants ànduñu si. bu ñu sukkandikoo ci yile étudiants ñoo ngi xamle ni kat daaneelu pavillon F bi du ñàkk benn yoon ay njeexital ci loolee ñoo ngi sàkku ñu tegaat ci taabal bi déploiement progressif bu campus bi. nañ ñu déglu ñu régler problème ndox mi bu ñu régler problème ndox bi ba mu jàll laa ñu mën a wax si leneen redéploiement bi aussi ñu tegaat ko ci table bi maanaam dañoo ne woon pavillon bi nekk bi bu nekk si campus bi daf si am benn boo xamante ni daf ñuy revenir tey boobu la ñu gën a bëgg maintenant pavillon ñu ñu ñu arrêté li nga xam ne moom lañ si bëgg a di ko daaneel. ñàkkum ndox mu tar seen dëkkuwaay méngoowul benn yoon ak condition yu ñuy jàngee waaye itam tàncaloo ci ay biiri nekk loolu de moo nekk jafe-jafe yi nga xam ni jiitu ASP yi moom nañ war a jël ci seen ay matukaay waaye mu mel ni rek yii leen jiit fës fëskee noo dellu gannaaw benn yoon ndax kat door nañu li nga xam ni amoo di daaneel pavillon F bu ASP bi.